bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala di dajawaat ak yéen ci minbarul islaam seen mbokk Ibrahim Khalil ànd ak docteur Mohamed Ahmed Lo ñoo nekk ci micro bi Valérie moo nekk ci xarala gi xam ngeen ne waxtaan yi weesu ñu ngi woon ci bunt boo xam ne mi ngi jëm ci ay tënk yoo xam ne des na ci mën a xamee lan mooy bida ci waxtaan wi weesu docteur waxtaan woon na ak nun ci xasaisul bidaa muy jagle yi nga xam ne ay mbir yoo xam ne bidaa moo ko jagoo mu doon yu koy ràññatle ak leneen ba ku gis benn ci yooye rek daldi xam ne lii kon ci biddaa lay bokk waxoon na itam ci yi nga xam ne léeg-léeg nit ñi di ko jort ci biddaa jàpp ne ay sart la yu cay war a mu doog a nekk biddaa te léeg-léeg du ca nekk ay sart wala ñu jàpp ne bu ca sart yooya manqué du tax mu nekk biddaa nga xam ne nit ñi ñoo koy jortal seen bopp loola itam andi woon na ci ay leeral andi woon na it ay leeral ci cosaan muy source yi nga xam ne ci la tënk yooyu ñuy xame biddaa di soqi ko ba tàmbali woon ak noonu tuuti nag ci tënk yooyu muy reegal yooyu di xawaaxit yi nga xam ne nag daanaka mooy buntu waxtaan wi dëgg dëgg dëgg yi jiitu woon yëpp ay muxaddimaat la ay introduction la waaye reegal yi dëgg dëgg nag incha allah tey la ci war a dugg ak nun gannaaw bu mu waxee régal yooyu euh, fan lay soqikoo ci waxtaan wi weesu kon ñi ngi koy bàyyi ak yéen mu wéy ci bunt yooyu wa jazaahullahu xayran bismillahi arrahmani irrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 ci tomb yooyu mu lim biñ koy waxtaanee ñaari tënk yi nga xam ne moo jiitu yooyu tuddaale nañ ko ci biir benn tënk ba dañoo waxoon ne kullu bidaatin fi sharci bidaatun fi luga wala aks kooku mooy tënk bi njëkkoon a jàng muy bépp bidaa boo xam ne sax na ci sharia ne bidaa la kooku bidaa la ci sharia ak ci waxiin itam ñaareelu tënk ba moo di kullu man taabada allaha bi cheyin lam yashrahu fa huwa mubtadi képp koo xam ne mu ngi jaamu sun borom tabaraka wa taala ci loo xam ne yàlla santaanewu ko kooka tàbbi na ci biddaa buñ ne yàlla santaanewu ko nag mooy loola nekkul ci alquran nekkul ci sunna kon fi ñuy tàmbale tey rek moo di tënku ñetteel bi muy régalu ñetteel bi réglementé bunt boobu moo di al ixdaasu fi l ibaadaati al maxda bidaatun ala kulli xaal jaamu yàlla yi dafa am li ñu tudde ay ibaadaat maxda loo xam ne jaamu yàlla képp la war a mën a doon mënta doon leneen moo tax dañuy wax ne kooku mooy ibaadaat yi nekk muxtaraa bi wasfiha laa bi asliha maanaam ci asloom maanaam nañ ko tërale nam cosaanoo jaamu yàlla rek la mën a doon waaye melokaan wañ ko jox melokaan wu dëppwut ak sharia lay doon loolu moo tax ku sos ci xeeti jaamu yàlla yi lu mel noonu dañuy wax ne yow dugg nga ci biddaa ala kulli xaal muy moo xam yow loolu nga sos danga nga cee jublu ne jaamu yàlla la wala woo ci ne jaamu yàlla la ndax la koy waral mooy loola genn wet rek la am jaamu yàlla rek la mën a doon ku la ci doon jox misaal mooy ku sosoon ak julli goo xam ne yàlla santaane wu ko léeg-léeg nga gis ay nit nit ñi ñuy julli ay julli yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala santaane wu ko nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna defe naa ne li ñuy tuddee àllarbay kare lu siiw la nit ñi ñu ko faral di julli ci lenn ci ay bërëb kooku dañuy wax ne kooku ibaada maxda la ndax julli la julli moom jaamu rek la mën a doon mënuta doon leneen moo tax dañuy wax ne ku sos ak julli kon goo xam ne nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna kooku indi na biddaa su fekkoon ne daf koo def sax ba noppi wax ne jubluwuma ci ak jaamu yàlla waaye dama koy def nii rek kon it kenn du gëm la mu wax ndax loolu genn wet la am moo di jaamu rek la mën a doon mënuta doon leneen julli moom jaamu yàlla rek la mën a doon mënta doon leneen kon kooku moo di képp ku sos dara ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàlla dong la mën a doon mënta doon leneen kooku tàbbi na ci biddaa moo xam jublu naa moo xam tudde na loola ak jaamu yàlla moo xam da ko jox weneen tur bu ñeenteel bi daf koy leeral ndax dañoo dend ay dëkkandoo lañ moo di al ixdaasu bil ibaadaati al muxtaraa bi asliha wa wasfiha yaftaqiru ila al qasdi xata yakuna bidaa ki sos ci xeeti jaamu yàlla yi jaamu yàlla goo xam ne cosaanam doonul woon jaamu yàlla tëruñu ko mu doon jaamu yàlla melokaan wi ko jox itam du melokaanu jaamu yàlla kooku kan lañuy wax ne ku tàbbi ci bidaa la mooy su fekkee ne loola daf caa jublu jaamu yàlla ku la ci doon jox misaal dalay wax ne ku doon jaamu yàlla ci loo xam ne ak mooy yàlla la ñëw di def loo xam ne dañ koo tere fekk li nga ci jublu mooy jaamu li nga gis kuy fecc walla mu yëngal bopp walla yu demee noonu nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ak jaamu yàlla gu mel noonu mu jékki-jékki sos ko nga xam ne cosaan li ci boppam yow yaa ko indi waaye doonu woon jaamu yàlla jox ko sa melokaanu bopp kon kooku kañ lañ koy tudde bidaa mooy su fekkee ne daf ne lii jaamu yàlla la ci jublu waaye kat ku jekkoon ba mu yàgg muy fecc wala muy def loo xam ne luñ tere rek la kooku dañuy wax ne kooku mi ngi def luñ tere mi ngi def lu xaraam waaye nag su fekkee ne loola dafa xaraam ba noppi mu wëlbatiku nag ne jaamu yàlla la ci jublu boole ca kooku yematul ci doon lu xaraam waaye day xaraam ba noppi nekk itam bidaa kon ak xaraam bu dikk dolliku ci geneenu xaraam lay daal di doon léeg gis koo xam ne ak jaamu yàlla da koy jël lenn ci yi nga xam ne Euh, yu dagan la nga xam ne mënees na koo def rek comme xeeti qualité yére yi ñuy sol lu mel ne ngëndal walla yu nuru yooyu nit ki sañ na cee sol lu ko soob ci xeeti col yi li feeg du charia dafa ñëw ne ko bul sol lu mel nii wala bul sol lu agsi fii day sañ a sol su lu nekk waaye nag su soloon lu dagan ba àggal wëlbatiku ne lii mu sol jaamu yàlla la ci jublu te fekk tëralin woowee sharia tëdde tëréewu ko noona néewuñu ko lii ak jaamu yàlla la ndax am na solin yoo xam ne ay jaamu yàlla la laa mbubb mi na yem wala na mel nii loolu ak jaamu yàlla la waaye jëmmi qualité mbubb mi nga xam ne da ngaa ñëw ne qualité bi nga ne nga ne la wala coton la nga ne dama koy sol doon gi mu doon coton li ma ci jublu mooy jaamu yàlla su boobaa tàbbisi nga ci biddaa ndax fekk nga loo xam ne dañ koo daganaloon nga bëgg koo soppi ak jaamu yàlla te amul benn déggin boo xam ne mënees na ko koo déggi ba mu soppi ak jaamu yàlla kon kooku kañ lay doon biddaa mooy su fekkee ne ki ko def daf cee jublu daf cee jublu jaamu yàlla kooku mooy regalu ñeenteel bi tënk juróomeel bi e, tënk bu am solo la ndax li tax mu am solo mooy biddaa yu bari da cee sosoo moo di kullu ibadatin tastanidu ila xadisin mawduu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa hiya bid'a gépp jaamu yàlla goo xam ne ñi ko sukkandiku ci ab xadis bu wérut boo xam ne ay ko teg googa jaamu yàlla biddaa lay doon ndax amul dalil ci sharia xam nga ne teg mu jekki-jekki tër ab xadis loolu mbir la moo xam ne xewoon na ci ay jamono ah, boroom xam-xame xadis liggéey nañ foofu liggéey boo xam ne bu rëy rëy la su fekkee laaj nañu taxaw fi danañ ci dellusiwaat kon xadis yi nga xam ne dañ leen a tër ba noppi samp ca ay jaamu yàlla yu taxaw yu tasaaroo yooyu kenn xamul nu mu toll lu bari la kon li jaadu ci ki jóg di sàkku xam-xamu sunna war naa fexe ba balaa jëfe ab xadiis mu taxaw ñaari taxawaay taxawaay ba ci jiitu mooy ji ma jàng ba xam xadis bi sax na wala saxut su saxul mu sànni su saxee mu leer ko ni kii waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam beneen jéego ba ca sës mooy mu jiima gëstu ba xam xadis bi lu muy wax ngir mu xam lu muy wax nag faw mu góor góorlu ba dellu ca dégg yi ni mag ñu jëkk ña saxaaba ya nga xam ne ba yonente ba sallallahu alayhi wa sallam di wax ñoo toogoon wër ko ña ñu jàngaloon nga xam ne ñooy taabiroon yi sus ci ñoom boroom xam-xami xadis nga xam ne dañoo jël seen itte yépp jox ko xadis ñooña na ñuy dégg xadis ba loolu moo war a doon sa départ leneen looy mën a dégg nga door ko ci dégge gannaaw boo xamee ne eh, gëstu nga ba xam seen i déggin ñoom ba àggal kon dal mu wér ba noppi nga door a soxlawoo gëstu maanaama nag ba jéem koo xam ndax soo gëstuwul maanaam yi ba jéem koo xam mën ngaa fexe ba dégg ci ay déggin yoo xam ne mën nga cee wuuteeg mboolem xeetu lislaam loolu day daal di indi ay njuumte ci biir liggéey mën naa sosloo nit ki sax ay biddaa yoo xam ne yëgu ko ngir defe ne xadis bi nangam lay tegtale fekk tegtaliwut la nga ko teg kon bépp jaamu yàlla goo xam ne dañ ko sukkandiku ci ab xadis bu wérul jaamu yàlla goo ko biddaa lay doon tënk bi ci tegu te mooy juróom-benneelu tënk bi. bala ngay jàll foofu ci. tënku juróom-benneel bi. Euh, ci tënku ñeenteel bi muy euh, li nga xam ne nit ki da koo def te nekkul ci cosaan ak jaamu koo xam ne gu yàlla yoonal la nga wax ne euh, bala ñu ko mën a tudde biddaa il faut ñu xam lu mu ci jublu moom su ko defee ba noppi wane ne ak jaamu la ci jublu boobaa lay doog a nekk biddaa tomb boobu jar na taxaw tuuti ndax. léeg-léeg mu am yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci lislaam nga xam ne ay moyen la waaye ña koy def mën naa am jubluwuñ ci ak jaamu lu mel ne tey yi xew léegi mën a organiser ay conférence wala ay colloque wala ay table ronde wala yu demee noonu nga xam ne moyen la bu ñuy def pour tasaare xam-xam léegi-léegi sax ñu wutal ko ab date boo xam ne dañ ko cay fixé nga xam ne waxtu wu mu ñëwaate ñaare eh, ñu di ko ca faral di def am na ñuy faral di e, tudde loolu ne loolu bi la ndax ñooña la ñuy def diine la te itam wutal nañ ko dab boo xam ne saa bu jotee ñu def ko wutal nañ ko forme bu ñu koy defee muy nañ koy organiser nañ koy defale kon loolu lañ bëgg ñu gën a leeral ndax ba xam dara tàbbi ci bitam déet bokk na ci itam e, lu mel ne e, xutba yi nga xam ne danañ ko di def ci jumaa te nga xam ne li ci gënoon a siiw Euh, ci cosaanu lislaam mooy ñu di ko def ci làkku arab ndax jamono booba euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci lislaam yépp arab lañ doon làkk wala dégg nañ ko waaye bi mu tasaaroo nag ba nga xam ne léegi egg na ci ñoo xam ne ñoom euh, làkk wi dégguñu ko te ba bi itam dafa am lu ñu ca jublu mooy la pour jàllale xam-xam pour yee jullit ñi ñuy gis ne di ko wax ca làkk wa nit ñi dégg loola mooy tax jubluwaay ba mën a am loolu it am na ñu dem ba jàppee loolu bida kon foofu itam euh, jar na taxaw tuuti leeral ko bu baax. jazakumullahu xayran kooku ay tomb la yoo xam ne yu ñor la yu am solo la euh, du ñàkk sax ne ci tënk yi ñëw ci kanam dana ci am yu ko laal direct waaye euh, du wàññi dara nu junji ne lu mel ne wàllu ndajam conférence muy bokk daje jël dara ci diine waxtaane ko wut ab bis boo xam ne dañ koy jàpp woo nit ñi ñu ñëw fekke si ko kooku ci jëmmi boppam di su ko tudde biddaa li koy waral moo di ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndajey jàng dafa bari woon jàng dafa amoon ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te moo ci gënoon a siiw moo di daf daan seet la xeet wi aajowoo mu toog ci jàkkaam mbooloo mi toog mu di leen ko jàngal ñooñee bu ñu fa jógee dañuy toog ci seeni kër di ko xamlewaat seeni ndaje sax suñ masaan génn di waxtaan ca pénc ma wala ci fenn ba mu yàgg kenn ci ñoom day wax ka ca des ne ko taala numinu saa kaay nu fàttaliku yàlla nag su ko defee ñu wëlbatiku jublu ci seen diine toog waxtaane ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana màng wépp waxtu woo xam ne warees na ko mën a màng ngir jot li nit ñi diine mu di ko màng moo tax léeg-léeg daana denc nit sax ci armeel yi ba noppi daal gaaw wax foofa nit ñi lu aju ci waaraate door faa jóge bu dee wàllu jàppal bés gi ah dañuy wax ne jëmmi jàpp gi mën naa doon biddaa mën na ko bañ a doon kañ lay doon biddaa mooy su fekkee ne bis bi ñu jël def ko bisu diine bi di fi daje di waxtaan dafa am lu tax ñi tànn ko loo xam ne jàpp nañ ne day yokk liggéey bi ci boppam tedd nga wala day tax ñi nangu ko ba tax mënee su ko woon a def démb wala mënee su koo def suba nga xam ne am na jagle goo jox bis boobu te jëlee woo ko ci sharia mm. su boobaa tànn googu nga tànn bis boobu bi daalee noonu mm. waaye nag su fekkee ne da ngaa tànn bis boo xam ne gëmoo ne bis bi am na lenn lu ci làqu nuru tiraanga mm. waaye dangaa jël dimanche ci kaw ne ah bii bis de mooy bis bi nga xam ne nit ñi bu ñu xëyee duñ liggéeyi te su ma leen woo bis boo xam ne bisu liggéey la duñ teew si ma tànn bis bi ñuy ñëw teewe si ci waxtaan wi su boobaa jëmmi tànn boobu kenn du ko tudde daal ndax teewul gëm nga ne dimanche tey jii mook samedi démb ji ak altene yi suba ji képp ñooyam bu dee ci wàllu ay jagle benn amu ci jagle waaye kii li tax nga tànn ko rek mooy ngir na mbooloo mi mën a teew si kon date boobu moom su fekkee loolu la ci jublu du wàññi dara waaye nag su fekkee dafa tànn datu boppam boo xam ne jëlewu ko ci diine waaye jàpp na ne moo gën a tedd yeneen yi ci des foofu la bi daal di jóge lu aju ci wàllu xutbay ajjuma yi foofu lu kéemaane la ngay dégg doomu aadama juy wax ne biddaa la ndax danañ jàng ci benn tënk ci kanam tuuti ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax muy ñàkk a def dara lii tax muy bàyyi dara kooku defe naa mën nañ ko yeexe ba ci tënk bi ci kaw ndax ci même jotaay bi la waaye liñ fiy wax ci lu gàtt moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul woon a xutba ci leneen lu dul arab ku la mën a wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na làkk yeneeni làkk yu bokkut ak arab lam lay wax loola njaxas la dëgg la am na ay baati alxuraan yu wàcc alxuraan waxu borom bi la tabaraka wa taala baat yi ak araf yi waxi yàlla sunu borom tabaraka wa taala làkk yépp la dégg moo tax biir alquranul karim ci boppam ay baat dugg na ci yoo xam ne yenn yi làkk yu dul làkki arab la yenn yi ay làkk la yoo xam ne ci giiri arab yu bari yi seen waxiit lay doon kon kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot li mu ko jottali tekkiwul ne dafa déggoon yeneeni làkk bañ naan la dafa dégg perse wala dafa déggoon langue waa Éthiopie wala dafa doon làkk-làkku ñeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làkku Quraysh mooy làkk bi nga xam ne moo di làkkam dégg la nag ak jaxasoo ma giiri arab yi surtout bi daawoo bi taxawee nga xam ne fenn fu nekk ay mbooloo danañ fa jóg dikk di wàcc ci moom muy wax ak ñoom mujj na lu bari ci làkki giiri arab yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarañe woon na ko waaye mënul woon a xutba ci làkk wu déggul te it gisuñu lenn luy wane ne it aajo woo woon na ku ko traduiral xutba loolu moo taxoon soxla wuñ di ko traduire ñam doon waxal ñëpp ñu ko dégg la woon lii wane ne su soxla woon a tekki ko dana ko tekki mooy bi mu gàddaay ñëw Madina dafa daal di digal Zayd ibnu Saabit radiallahu taala anhu ne ko jàngal ma làkku yahuud yi ndax ma man di bindantee ñoom su ñu ma bindee ma man xam liñ bind lu mu doon man itam su ma leen soxlaa bind bind leen seenu làkk Zayd ibnu Saabit daal di koy jàng ci ay fan yu néew daal di koy man daal di nekk secrétaire am ci côté boobu kon day wane ne su fekkoon ne aajo ji am na kon fu mu xutbaa ba àggal dana ne jóg leen tekkil ma ko mhm. waaye aajo jooju amul woon waaw ci tolluwaay bi loolu lañ ci mën a wax defe naa ne du ñàkk mu gën a yaatu ci kanam insha allah insha mhm. allah mhm. beneen bi ci tegu kon juróom-benneel bi juróom-benneel bi moo di kullu ibadatin tastanidu ila ar-ra'yi wal hawa fa hiya bid'a gépp jàmm yàlla goo xam ni dañ koo sukkandiku ci xalaatu doomu aadama moo xalaat rek ba rafetlu ne lii nii la war a tëdde mu tëre ko noona wala bànnee xam rek la topp jàpp ne lii jaamu yàlla la war a doon moo xam daf koo sukkandiku ci ak gént gum gént wala lum jeneer wala lum jekki-jekki moo xam haatif lañ koy tëdde wala tur wuñ ko mën a jox mu jekki-jekki ne loola lu ko dikkal la loo xam ne jox na ko xeetu jaamu yàlla mu jekki-jekki di ko def kooku dañuy wax ne jaamu yàlla la goo xam ne sukkandikuwut ci sharia kooka mënut a génn mënut a génn biddaa kooku lenn ci ay gëstukat dañuy dem ba di ko tuddee li ñuy wax ittihaad muy farlu waaye farlu ci diine itam dafa am dafa am place dafa am fu ñu ko sañe ak fu ñu ko sañewut bu fekkee fent la moom teg ci sa kaw xalaat wala ci sa kaw gént wala ci sa kaw njort wala ci sa kaw ay jeeñeer kooku mënee su cee sukkandiku ngir fent ak jaamu yàlla bu ñuy wax ijtihaad mooy koo xam ne dafa góor góorgóorlu danañ ci ñëw ci kanam jàng sharia ba xam ko xam nan la ñuy génnee ci alxuraan xam na la ñuy génnee ci sunna xam nan la ñuy delloo ca wax yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ci saxaabaam xam nan la ñuy xamee xadis bu wér ak bu wérut su ko defee ku mel noonu su masala ñëwee mu ne jàng te amut loo xam ne lu mën a daal di tegtaloo fi saasi la dana daal di mën a delloo masala moomu ci ay cosaanam ngir mën a xam fan la fa war a toll lan moo ci war a nekk gis-gisul islaam su ko defee mu joxe gis-gis boobu kooku moom la ñuy tudde ijtihaad waaye nag toog ba mu yàgg nga gént wala nga jeñeer wala nga jort wala nga ne dégg naa xaatif bu jékki-jékki wax ma nangam nga jékki-jékki tër ko mu doon jaamu yàlla jaamu yàlla du saxe noonu kon ak jaamu yàlla daal ngir mu dëgër faaw day sax ci téere sunu borom tabaraka wa muy alquranul karim wala mu sax ci sunna bi sallallahu alayhi moo tax al imaamu yalamu man yulamu min qasdi shaarici annahu lam yakil cheyan min alcibaadaati ila aaraai alcibaad fa lam yabqa illa alwuquufu indama xadda nee na borom bi tabaraka wa taala moo ko yonentam amuñu benn participation boo xam ne jox lañ ko nit ñi ci xeeti jaamu yàlla pour ñu jiima fent ñoom itam li nit ñi aajowoo lépp ci ay jaamu yàlla borom bi jox na leen ko ci alquran ak ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon soxla woowuñ ay xalaat yoo xam ne nit day toog ba mu yàgg mu tëral ko boppam indi ko wane na kii ak jaamu yàlla la kon daal la des mooy seet la borom bi yoonal nga jéem a xam loola loola mooy tudd xam-xam soo góorgóorloo ba xam ko xam la lam bëgg ci yow xam lam la digal nga mën góor góorgóorlu def loo ca man seet lam la bàyyi nga tere ko lépp kon kooku mooy ka jàng mooy ka am xam-xam mooy ka jëriñu ci xam mais lu loolu Euh, nit ki day tàbbi ci biddaa te tàbbi ci biddaa comme ni mu jàlle woon lu garaaw loolu la lu bare bari ci ay xew-xew yoo xam ne mu ngi xew ñu koy askani ci diine euh, li wér mooy xalaatu doomu aadama rek moo ko tër rafetlu ko ñu daal di koy tër boole ko ci diine ji te fekk bu fekkee dañ ko delloo nag ci euh, nattukaayu lislaam mu di alquran ak sunna dañuy gis ne loolu du doon lu sax te lu saxul ci ñaar yooyu mënut a doon lu dul biddaa kooku mooy juróom-benneel bi juróom-ñaareelu tënk bi mooy li ma doon junj léegi muy bunt bu am solo boo xam ne faaw nu taxaw fi mm-hmm. eh, ndax nu mën koo dégg moo di ida taraka nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi'la ibadatin min al ibadat maa kawni sababiha almuqtadi laha qaa'iman walmaaniu minha muntafiyan fa inna fi'laha bidaa mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léeg-léeg mbir day am moo xam ne jaamu yàlla la wala jaamu yàlla lay nuru ba noppi du ko jëfe ba noppi du ko jëfe lu bari ci nit ñi nag dañoo defe ne lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi rek def ko biddaa la fekk du noonu am na yu muy bàyyi te def ko du doon biddaa te fekk ak jaamu yàlla lay doon loolu su ma ko waxee xëy na kéemaan lay doon wala mu am ñu mu bett waaye am na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su bàyyee jëf ju nuru ak jaamu yàlla dañuy xool ndax sabab su war a tax mu jëf ko am na waay wala ndax sabab su war a tax mu jëf ko amut xoolaat geneen wet ga ndax su sabab su amee ba noppi waaw ndax am na dara loo xam ne moo tax moo ko war a mën a tereel yi mu jëfe ko wala amut lenn lu ko ko war a mën a tere kon bunt boobu day dellu ci yonent bi ak bàyyee mbir bala ñëw agsi nag ci gën a leeral loolu ba mën a dugg ci bopp yi faaw nu am lu leeral moo di nan la ñuy xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na dara nan la ñuy mën a ñëwee ne nangam yonent bi defu ko woon sallallahu alayhi wa sallam la ci jiitu mooy ab saxaabi yu ci boppam nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deful woon nangam. niñ mën a xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bàyyi na jëf sàngam defu ko eh, ñaari yëf la bi ci jiitu mooy. kenn ci saxaaba yi nettali ne nangam de yonent bi sallallahu alayhi wa defu ko woon lu mel ne saxaaba yi bu màgg ba lam nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jullik iid dafa woote ñi julli waaye kenn noddul kenn taxawalut kon noddu ñu taxawal xadis boobu mi ngi ci buxaari ak muslim maanaam kenn noddul kenn taxaw kenn taxawalut defuñu li ñuy wax liqaam mm. kon foofu daal nañuy xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na niñ mën a xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bàyyi na jëf sàngam defu ko eh, ñaari yëf la bi ci jiitu mooy kenn ci saxaaba yi nettali ne nangam day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko woon lu mel ne saxaaba bu màgg ba lam nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli ayit dafa woote ñi julli waaye kenn noddul kenn taxawalut kon ñu taxawal xadis boobu mu ngi ci Buxaari muslim maanaam kenn noddul kenn taxaw kenn taxawalut defuñu li ñuy wax liqaam kon foofu daal nañuy xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na nodd ak ci iid kon bàyyi googu sunna lay daal di doon nan lan xame ne bàyyi na ko kon ab saxaab yi moo ñu ko nettali ne amut kenn noddalu ko kenn liqaamalu ko loolu moo tax ba léegi ci bisu iid doo gis nit ñi di ko noddal wala ñu di ko liqaamal danañ dellusiwaat ci lool ñaareel ba ci nañ ko mën a xamee moo di mbir moo xam ne lu am solo la ba su fekkoon ne am na wér na ne faawu saxaaba yi danañ ko nettali te nettali ko xam nga ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram dafa itteeloon jullit yi ci anam goo xam ne àgg na ci léppam léppam dañ ko gëstu yahud ba sax dafa doon wax naan yahudi yi ba dafa doon wax naan yéen daal seen yonent bi jàngal na leen lépp lépp lépp ba ci ni ñuy demee sax ci wanag c'est-à-dire bàyyiwul dara kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw nga xam ne mooy ki ñëwoon di yoonal maanaam lislaam moo ko indi te jëfam wala waxam dara neenu ci daraam neenu loolu moo taxoon saxaaba yi léppam dañ ko doon gëstu na muy demee ca wana wa sax ak na muy dund ci biir këram dund yu xóot sax digganteem ak ay soxnaam lépp dañ koo gëstu ba xam ko leeral ko wax ko kon bàyyiwuñ dara kon suñ jekkee ba mu yàgg am menn mbir moo xam ne ak jaamu yàlla lañ ko tuddee te saxaaba yooyu nettaliwuñ ko kon dañuy xam ne loola du jaamu yàlla lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defut woon la nan lañ xamee ne defu ko woon ñàkk a toxal goo xam ne saxaaba yooyu ñàkk nañ koo toxal ci lan xamee ne loolu lu mu defut woon la ndax su ko defoon duñ toxal yee ko gën a sew di bàyyi li gën a rëy ci xeeti jaamu yàlla yi kon daal ñaari mbir yooyu ci la ñuy xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bàyyi na dara ñu xam ne kon bàyyi gim bàyyi kon loolu bàyyi gi ci jëmi boppam sunna lay doon kon foofu su fekkee gis na mbir mu tasaaroo ñu tudd ko jaamu yàlla te ñoo ñooñu xamuñu ko kon dana daal di mën a dogu ne loolu kon bi daal mën nañ cee joxe meneen misaal maanaam bàyyi gi nga xam ne ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko euh, buy dugg ci julli yéene yéene joo xam ne daf koy wax ci làmmiñam léeg-léeg nga dégg nit koy bëgg a julli ne yéene na ma julli waxtu sàngam léeg-léeg sax mu ne nangami rakka loolu yonent bi sallallahu alayhi wa defu ko nan lañ xamee ne defu ko mooy saxaaba yi tuxaluñ ko te loolu lu am solo lu rëy ya ko gën a sew ci julli sax yooyu tuxal nañ ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxul fenn ne saxul fenn ne am na yéene jum tudd loolu moo tax boroom xam-xam yi ñu ne tudd yéene maanaam bu bëgg nga def dara wax ko ci sa làmmiñ kooku bi daala waaye yéene ci xol lay nekk bi nga jógee fab satala gi sol say dàll dem ca wana wa génn teg sa bank toog xel li ndox ci say loxo di jàpp kooku da ngaa yéene yéene nga jàpp maanaam kenn ku nekk xam na ne yéene woo raxas say loxo rek dal di jóg dem waaye dafa am looy def kon la nekk ci sa biir xol nga xam ne yéene ji sa borom ngay jëflanteel foofu waaye du doom aadama yi te yàlla xam na li nekk ci xol bi wala gën a jege sa buumi xol kooka moo tax aajowut wax ko ci làmmiñ wi saxul fenn ne tudd na yéene lu dul ci bu fekkee ne dafay aj di wax labbayka foofu sax na ne bu talbiya dana wax fixé lan lay lan lay armalal ndax umra rek la wala aj rek la wala dafay boole aj ak omra loolu lenn ci boroom xam-xam yi tegtaloo nañ ci ne boobu place moom dagan na mu tudd fa yéene waaye téewul nag am na ci ñoom ñoo xam ne nee nañ loolu kat du yéene jum tudd ci làmmiñam waaye dafay déclaré ci kanam mbooloo mi ngir yëgle ne aj gi nag armal gi tàmbali na loolu la ci jublu moo tax mu tudd ko waaye lu mën a xew rek su fekkee ne loolu tudd yéene la ci béréb boobu rek la amee waaye amut ci beneen béréb foofu la ni daal di xamee lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi euh, lan la kon mën na loo jële foofu ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi lenn rek la mën a doon ci ñett yi nu dellusiwaat kon ci ci régal bi ba ci jëkk moo di mu bàyyi ko xeetu jëf wala xeetu jaamu yàlla boo xam ne jëfewu ko daf ko ñàkk a def li adami wujudil muqtadi lahu maanaam parce que amul sabab bu war a tax mu di ko def jaamu yàlla gii daf ko bàyyi lu tax mooy sababam amut ci jamonoom ku ca doon joxe misaal da ciy joxe misaal ci xeex ñi nga xam ne dañoo lànk ba a joxe asaka loolu am na ci jamono yu Abu Bakar as-Siddiq radiallahu taala anhu muy qitaalu maani az-zakaa te amul ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañuy daal di ñëw rek ne biddaa la ndax defu ko woon déedéet ndax sababam amul woon hmm. amul woon ay nit ñu fetteerlu ci jamonoom lànk ne duñ joxe asaka ba war a ñuy xeex ak kon kooku sabab si war a tax ñuy xeex ak ku tere asaka muy tere asaka ci boppam sabab soosu amul woon ci jamono yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax bi mu amee ci jamonoy abou bakar as siddiq radiallahu taala mu daal di xeex ñoom xeex goo xam ne saxaaba yépp dëppoo nañ ci gannaaw boo xamee ne sax am na discussion bu ci am digganteem ak Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu ba Omar door a xam la Abubakar wax dëgg-dëgg mu door a juboo ci loolu xeex googu daal di am saxaaba yi dëppoo ci kon kooku jëf la joo xam ne am na gannaaw yonent bi salallahu alayhi wa sallam te kenn du ko tudde bidaa ndax sabab sa taxoon mu am sabab sa ko waral amul woon ci jamono yonent bi salallahu alayhi wa sallam mm-hmm. waaye nag waaye nag mbir moomu di xew gannaawam ñuy wax ne sababus jëf la bu mu doon loo xam ne la ko waral mooy càggante nit ñi maanaam nga xam ne seen càggante moo tax ñu ne sabab si am na gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax marwaan ibnul xakam bi mu dikkee nekk amiru madina ci jamono yi muawiyatu ibnu abi sufyaan radiallahu taala anhuma bi mu dikkee moom marwaan ibnul xakam dafa jiital xutbab iid iiday ni muy xutbab korite ak tabaski daf ko jiital door a julli ñu ne ko waaw lii nag xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli ba àggal door a xutba lu tax yow ngay xutba door a julli mu ne léegi damaa bañ nit ñi tasaaroo bañ a déglu xutba bi te dama bëgg li may wax ñu déglu ko kon tasaaroo googu càggante la dañu waroon toog déglu ko moo tax cheikh al islam ibnu taymiya bi muy tontu foofu marwan ibnu xakam ci téeram bi ñëw al daf ne ko ah kooku kat dañ koy wax ne ko lii sa càggante la ndax bul fàtte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan xutba daf leen di xutba xutba boo xam ne dañ ciy jariñu di ci gindiku di ci xam seen àdduna ak seen àllaaxira yow nag sa xutba bi ngay def lu dëgëral sa nguur képp ci ngay xutba loolu moo tax nit ñi xeer gañu amoon ca xutba yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko wuutu woon sës ca moom amuñu ko ci sa xutba bii kon lii nga def yow ak mooy yàlla la mooy yàlla nag du la may ngay sos ci diine ji lu ci bokkut yow kay li la war mooy nga tuub dellu ci sa boroom te topp sunna sab yonent sallallahu alayhi wa sallam kon su fekkee ne mbir ma nga bëgg a wax ne moo waral ngay indi lu amul woon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sabab soo sa càgganteeg doomu aadama yi dong moo ko waral mm. kooka du la may ngay sas ci diine ji loo xam ne lu ci bokkul la mm. kon foofu la ñuy xamee ne mm. foofu la ñuy xamee ne nodd gi alxalifatu rachid muy osmaan ibnu affan radiallahu taala anhu nodd gi mu dolli gi mu dolli ci jullik ajjuma nodd kooku du biddaa ndax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan nodd genn nodd mooy su imaam ji agsee bay bëgg a xutba su imaam ak bi bëgg a xutba rek foofu la ñuy nodde waaye fu mu noddee benn dana fekk nit ñi ñu nga woon ci jàkka ja wala balaa daaneel rek nit ñëpp danañ daje ndax dëkk bi booba dëkk bu tuuti la waaye nag bi ñu ñëwee ba ci jamono Ousmane ibn Affan nga xam ne nit ñi gàddaay nañ ñëw Madina ba bari fenn fu ne jóge nañ fa dëkk bi mujj doon dëkk bu rëy mu gis ne suñ jekkee ba imaam di xutba te ñoom seen xutba dafa gàttoon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa soññee ci loolu ci xadiisu muslim wax ne gàttub xutba ak guddug julli gi kooku nit ki di ko def kooku day tegtale ne ku am fiq la ma innatun min fiqihi day wone ne kooku ku am fiq la ko loolu moo tax seen xutba dafa gàttoon su fekkee ne dëkk bi yaatoon na noonu imaam jekki ba nekk ci kaw minbar bi ñu door a nodd koo xam ne yaa nga doon door a waaj di jàpp bala ngaa ñëw da fekk ñu xutba ba julli bi loolu amee Ousmane ne kon na wut geneenu nodd goo xam ne mooy jiitu geneenu nodd boo xam ne mooy jiitu gu yëgal nit ñi ne waxtu waa ngi dugg su ko defee ñu préparé bu imaam ji dikkee ba yéeg ci kaw minbar bi noddu gi ñu daan def ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di koy def lu tax du bidaa mooy loolu dafa xewoon ci càgganteeg nit ñi maanaam yaatu dëkk bi akuk yokkoom loolu càgganteeg nit ñi wuute naag lool jiital gi marwaan jiitaloon euh, xutbatul idayn kon foofu dal nay wuute ginnaaw nga xam ne xewul ci càgganu nit ñi nag ñàkk am nga ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax ñu daal di ko tudde biddaa loolu dañ ko wax rek ngeen misaal waaye duñ fàtte mukk ne Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu ci alxulafa la bokk te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen tazkiyal boppam moo ne aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa rachidin kon kooku sunnas benn xalifa ci alxulafaa rashidun la te yonente bi moo ne woon jël leen seen sunna ñoom ñooñu ni ngeen di jëlee sama sunna kon kooku munta doon ci genn anam biddaa waaye nag pour joxe misaal rek ci anam googu wane ni càgganteeg nit ñi taxul Ousmane yokk ko waaye yaatu dëkk bi moo taxoon mu mu yokk ko waaw dëgg la euh, ci ngirum al Abu Hanifa ñoom dañoo gis ne ay ay ajjuma yu bari mënee su koo julli ci benn dëkk cest à jenn jàkka rek jenn jumaa rek moo war a am ci dëkk ak lu dëkk bi réer yi loolu moo tax danga leen di gis ñi nga xam ne ay axnaaf lañ su ay lu ëpp jenn jàkka soo xasee am ci dëkk suñ jullee ajjuma ba noppi dañuy fay tisbaar waaw loolu moom noonu la ñuy doxalee lu tax ñu ne ndaxte ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jenn jàkka rek jenn jumaa moo amoon ci dëkk ba hmm. koneen kon yeneen jumaa yi amaat gannaaw bi yépp doonuñu ay jumaa yoo xam ne yu ñu reconnaître la kon dëkk bu nekk daal jumaa jafe jëkk mooy jumaa ji jumaa yi ca des mm. dootuñu doon ay jumaa mm. waaye loolu boo ko seetloo boo ko tegee ci xaayida bi da daal di gis ni njuumtal mm. yaatu yi dëkk yi di yaatu ngir jumaa yi di yokk di bari kooku du càggante nit moo ko indi waaye dafa doon lu am loo xam ne faaw mëni suti bañ a jëflanteeg moom euh, ci euh, bunt yi nga xam ne charia ubbi na ko mu doon bunt yu yaatu yoo xam ne mënees na ci jëriñu te du tax nga tàbbi ci bidaa kon foofu lay dugg loolu moo tax ay ajjuma mën a am ci ab dëkk te ci jamono yu saxaaba yi ridwanullahi alayhim gannaaw boo xam ne ubbi nañ Sham ak a boo xam ne ubbi nañ Andalus ay jàkka yu bari doon nañ am ci benn dëkk kon kooku mooy melokaan bu njëkk bi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa bàyyi na jëf ji lu tax mu bàyyi ko mooy sabab suy tax mu di ko jëf amut kon jooju jëf du ku ko def rek ñu ne biddaa la ñaareel bi an yatruka al fi'la ma'a wujudi al muqtadi lahu wa wujudul maani minhu léegi bàyyi na jëf joo xam ne sabab sii tax ñi koy jëf sax dama ngi fi waaye nag dafa am leneen luy teemu jëf ko moo tax mu bàyyi ko ku ci doon jox misaal da ngay dellusiwaat ci julli gi nga xam ne jiite woon na ko julli yi ci ramadaan jullig naafila salaatu tarawiix bi nga xam ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jiite woon na ko jullit yi ñetti guddi wala ñeent ñu dajaloo di ko nekk ci guddi ñetteel wa ga wala ko ñeenteel ga mu bañ a génn bi mu xëysee mu ne leen yéeg naa seen dajaloo gi de waaye li tax génnuma moo di ragal ñu farataal ko ci yéen ah kon kooku almuqtadi am na sabab si am na ndax jullit taraawiix ci mbooloo la chaque ne am na aw yow wu bari te itam mbir muñ santaane la kon kooku almuqtadi am na sabab si am na waaye nag dafa am benn maania dafa am loo xam ne moo tee mu continuer ci di ko def mu dal koy arrêté loolu mooy lan mooy ragal ñu farataal ko ci xeet wi te suñ ko farataalee ci ñoom duñ ko man mu daal di arrêté moom mbir foofa lu mel noonu nag ab atteem li feeg li ko tere woon mu def ko wala mu continuer ci loolaa nga fa tere googee day taxaw saabu bu loola dañee tere ga dañ loolu moo tax ci fiqhu Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ak fiqhu mboolem saxaaba yi seenu dégg diine moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee ñu xam ne la taxoon mu bañ caa continuer loola dañ na moo di farataal amatul gannaawam ñu daal di delloo si waat salaatu tarawix Omar ibn al-Khattab daal di ñëw fekk jullit yi ñuy julli tasaaroo kenn ku ne di julli sa naafil ak bopp mu dikk boole leen ñoom ñëpp ci gannaaw benn imaam ah muy Ubay ibn Kaab beneen bi ci des Tamimu Daari foofa daal nañuy xam ne euh, Omar ibnul Xataab am nag yëg ci ne la taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañoon koo defati loola jeex na mu di ragal ñu farataal ko ci nit ñi te gannaaw bu fi jógee moom yonent bi alayhi salaatu farataal amatut farataal amatut ndax ci kan la ñuy wàcc dara ba di ko farataal su boobaa farataal amatut kon loolu mooy li boroom xam-xam usul yi wax ne euh, alxukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman mm-hmm. atte bi li fekk sabab si waraloon ñu farataal ko ma nga fa sabab su àtte bi daf fay nekk su fa sabab su jógee àtte ba jóge fa mm-hmm. kon li taxoon ñi arrêté ko muy eh, bañ ñu farataal ko ci xeer mi loola jóge na fi ci jóge fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon loolu daal day doon lu mën a nekk moo tax Omar ibn Xattaab daal koy dellu si waat kenn du wax ne mm-hmm. kon daal kooku mooy ñaareel nit mën naa laaj mu ne waaw nan la ñuy xamee ne yenent bi sallallahu alayhi wa lii mu bàyyi daa am lu teemu def ko moo tax mu bàyyi ko loola su fekkee ne dafa am texte bu ñëw wax nu loolu comme ni mu ko waxee foofu ma manaani min alxuruji ilaykum illa xasiyata xasiyatu an tufrada alaykum foofu moom moo nu wax ne li teem a génn jiite leen continuer mooy dama ragal ñu farataal ko ci yéen kon foofu wax na ko nan la ñuy itam nag ne léegi moom dafa bàyyi jëf ji dafa bàyyi jëf ji waaye bi mu ko bàyyi dafa tee sabab si sabab si euh, maanaam ñàkk sabab mën a am sabab si moo tax mu bàyyi ko ñàkk sabab si moo tax mu bàyyi ko foofu dañuy xam ne li koy joxe moo dine ne euh, li nga xam ne daf koo bàyyi suñ xoolee gis ne am na ay moroom ci diine ji yu kenn bàyyiwul ñu xam ne kon kooku dara moo tax mu bàyyi ko maanaam nodd nodd nodd am na muqtadi ci diine li tax noddalul iiday la parce que nodd am na sabab kii julli ji iid ni kii julli ajjuma kii julli julli juróom ni mu aajowoo ku ko noddal noonu la kii julli ji iid aajowoo ku ko noddal mu yëg ko xam ne waxtu julli jot na waaye defu ko waaw ndax am na lenn lu tee mu def ko ñu ne déedéet gisul fenn luñ toxal loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax wala ab saxaabi wax ne nangam mootee mu noddal ko waaye daf koo defut kon léegi sabab saa nga fa te jisuñu lenn lu ko war a mën a tere ba noppi defu ko kon lu mel noonu la ñuy wax ne ku ko def indi nga biddaa kon ku jógoon noddal tey jullig it wala nga liqaamal ko kooku dañuy wax ne indi nga biddaa loolu lu tax moo di léegi mbir ma ci boppam mbir ma ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo bàyyi te sababa nga fa su waroon a mën a tax mu def ko te giseesul lenn lu war a tee mu def ko ba noppi teewul mu bàyyi ko kon yéeg ne bàyyi googu ci boppam mooy daal di doon foofu sunna ndax ni jëf di doone sunna bàyyi itam day doon sunna ndax léeg-léeg sharia daf lay nattu ba xam nag yow mii da topp sam xel wala da ngay topp diine léegi léeg mu won la di la won di la won ba nga jàpp ne nag war ngaa mën a jàllal sa bopp ba soo gisatee lu nuróog li nga war ko mën a tëral sa bopp mu jekki-jekki ne la kaccet bàyyi la won la loo xam ne sabab ya nga xamoon yépp dajana ca ba noppi mu ne la nag bul jëfe noonu su ko defee bu boobaa nag foofu la ñuy xamee sa topp ndax sam xel ngay topp wala diide ngay topp bu boobaa kon loolu moom defe naa euh, bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëf kon loolu day daal di leer am na misaal yu bare bari daanaka yëpp jaruñu ci bin dugg ndax euh, bu fekkee ne régal bi daal lay leer rek mm-hmm. euh, lépp loo xam ne jël nga ko teg ko ci mm-hmm. da daal di xam ni mu tëddee day daal di leer ci yow mm-hmm. kon daal gàttal gi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu bàyyee jëf joo xam ne ak jaamu yàlla lay nuru te jëf joojee ay sababa ma nga fa yow waroon a mën a tax mu def ko te gisuñu lenn la ko ko waroon a mën a tee def kon su boobaa ñu xam ne moom mii dafa bëgg a sunnaal jox xeetam bi sunnas ñu bàyyi jëf yooyee ñu ñàkk koo def kooku mooy euh, juróom-ñaareelu euh, tënk bi nga xam ne tënk la boo xam ne ku ko dégg euh, dana doon tënk boo xam ne bu bu ama am solo ci bunt bii la ndax mooy tax doo jóg rek ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deful woon rek def ko daal di doon biddaa su fekkee am na benn roqanti wala laaj boobu nga wax ci lu aju ci biir loolu ñu door a dugg ci tënku juróom-ñetteel bi waaw wala rek ñu daal di jàll waaw foofu moom xam naa li ñu fi wax rek mooy kon ñu bari dañuy jàpp ne sunna moom suñ ko waxee euh, jëf rek lay doon wala ay wax te ndekee léeg-léeg sunna nekk loo xam ne mooy bàyyi bañ a def da dangay gis ñoo xam ne lañu ñu fent ña ko deful dañ leen di tuddee ne ñoo ñu ñu ñàkk a def sunna lañu la ñu nga fent nga xam ne amul benn dalil boo xam ne moom la mën a sukkandikoo sharia ñoom ñu di ko def jàppe loola ak xër wala jàppe loola sax ñoom euh, sunna su ko defee di ayibal ña nga xam ne defuñu ko ba léeg-léeg sax ñooña nga xam ne ñàkk nañoo def ñoom it léeg-léeg euh, seenu manqué xam-xam léeg-léeg yóbbee leen ci ba tax ñu yëg lool ak tuuti ci ñàkk def ga ñu ñàkk def ngir ñañu dendal ñoom ñëpp di def su ko defee ba ñu def beneen defin woo xam ne donte wuute la nag ñooña waaye fokk ñu am lu ñu def loolu bu ñu ci doon joxe misaal muy léeg-léeg xew-xew yi nga xam ne danañ ko di amal di ko askanal ci diine euh, te amul benn sësuwaay bu wér léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ñoom defuñu ko sax ne ndax teguwul ci sunna waaye bari ña koy def ci seen wet ak ñoom wet ga ñu wet ci ñàkk gaa def léeg-léeg dana leen yóbbee ci yëg ak xeebu yëg itam ak manquil gu leen ñooña di manquil di wax ne ñoom dañoo fonkul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo fonkul sunna ba tax ñuy organiser leneen donte niroo wut ak la ñeneen ñay def waaye dal fexe ba def dara ñoom itam ca cérémonie ca jamono yooya ca bis yooya te xamuñoo woon ne bàyyi woon ko complètement bañ a def dara loola moo doon na ci jamono boobu kon euh, foofu itam euh, tomb bu am solo la si na ko déggee ci euh, régal boobu kon leer na ci biir waxtaan wi kon defe naa mën ko continuer ci beneen régal bi ci topp. incha allah régal bi ci topp ci lu gaaw. moo di juróom-ñetteel bi. Mm-hmm. defe naa bu fekkee jeexal nañ ko itam. Mm-hmm. alhamdulilah dana du so rek fi waxtu wi jeexee. Mm-hmm. moo di bu xaw a nuroo ak bi weesu la. wala dañoo am ak jokkaloo moo di kullu ibadatin taraka fialaha salafu saalix min alsaxabati waltaabicina maa wujudi almuqtadi wa intifaa almaanic fa innaha bidaa gépp jaamu yàlla goo xam ne saxaaba ya ak taabicuun ya muy seen ndongo ya ñu yaroon ci diine jaamu yàlla googee ay sababam am na te gisee sut lenn lu ko mën a tere ba noppi ñu bañ koo def kon googu jamu yàlla def ko biddaa lay daal di tudd tënk bi ak tànk bi jiitu xawees na koo mën a boole wax ne gépp jaamu yàlla goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam dëppoo nañ ci bañ koo def te fekk sabab sa am na amut lenn lu leen ko tee def itam kon koo def ko biddaa la la am na genn julli gu ñu tudde salaatu ragaib danañ ko leeral ci kanam ak nañ koy defee ku ñuy wax boroom xam-xam bu mag bu ñu tudde al Izz ibnu Abdissalaam ci régal boobu ci la sukkandiku pour wane ni julli googu bi daa la mm. ànd ak ne jamono jëm doon dund moom imaam boobu mën ngaa wax ne nit ñëpp xawoon nañu dëppoo ci waxtu julli googu bu waxtoom jotee ñoom ñëpp ñu génn dem julli ji ko waaye fan la sukkandiku mm. lim wax bëgguma ko jàng ci arab ndax waxtu wi day jël lu bari kon mm. waaye danaa ko wax nii rek ci lu gaaw daf ne bi mu bëggee wane ne julli googu biddaa la daf ne bokk na ci li ñuy wan ne julli gi biddaa la moo di boroom xam yi nga xam ne ñooy làmpi diine ak yilimaani jullit yi nga xam ne ña nga tàmbalee ca saxaaba ya ba ca ña ñu yar ak ña ñooña yar ak ñeneen ñu mel noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo bind téere lislaam yi nekk ci sharia tey te xam ne ñooñu ñu xér lañ ci jàngal nit ñi yooni njub xamal leen diine xamal leen sunna te tuxalewuñ kenn ci moom ne julli googu ne julli googu farata la wala sunna la mm. wala yonent bi xam na ko wala saxaaba yi xam nañ ko mm. wala nit ñu baax ñooñu xam nañ ko mu ne loolu moo lay wane ni ñii ñëpp de su fekkoon ne sunna la wala lu sax la kon du mën a nekk du mën a nekk mukk sunna su mel noonu di leen làqu ba duñ ko xam ndax kii ñii kat ñooy làmpi diine lu leen faat faat ñëpp ñii ñooy royukaay ñu baax ñi ñii kat ñooy delluwaay yi ci diine ci mboolem attey diine ci farata yi ak ci sunna yi ak ci li lew ak ci li xaraam kon ñooñu luñ xamul mënta doon diine lii la al izz ibnu abdusalaam wax ba muy tontu waa jamonoom ci julli googee ñu tudde woon salaatu raxaayib di ko def te danañ ko tudd ci kanam kon régal boobu boroom xam-xam yu bari sukkandiku nañ ci ngir weddi yu bare bare bari yoo xam ne nit ñi def nañ ko tudde ko ay jaamu yàlla ci jamono yenn yi ci jamono yooya la woon yeneen yi ci des jàll na ba ci jamono jii ñuy dund nun nit ñi di ko def bari luñ koy def lool te xumbal ko boroom xam-xam yi ci régal bi lañ sukkandiku ba weddi bépp xew-xewu diine boo xam ne ñi ngi koy def di ko askane ci diine te fekk yonent ba sallallahu alayhi wa sallam santaane wu ko nekkul ci alquran al karim ah saxaaba yi itam buñ dikkoon tey fekk nu dajaloo di ko def bu ñu dikkee xool dana leen bett lii lu mu doon ndax ñoom dundoon nañ ba jàll te mosuñoo gis kuy def loolu te surtout bu dee yu mel na nag yu aju ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañoo bëggoon yonent bi bëggiin woo xam ne kenn du àgg ci ñoom waaye nag seen bëgg googu dafa àndoon ak dégg dégg googu mooy alfiqhu fi diin mooy dañoo xam nan lañuy bëgge nit bëgg ko mooy topp ko def ay ndigalam bàyyi ay tereem taxawu sunnaam si zahir ak baatin tosaare ko ci sa kem kattan jihaat ci loolu ci sa xol ak ci sa làmmiñ ak ci sa loxo kon loolu mooy yoonu ñi nga xam ne ñooy asalafu saalix lépp loo xam ne askane nañ ko diine te yonente baaki saxaabaam xamuñu ko ak lu mu rëy rëy lu ko nit ñi fonk-fonk ak lu mu bari bari ñu koy def moom ñoom duñ ko génne bi daa mukk ndaxte gépp jaamu yàlla goo xam ne muhammad ibni abdullahi ak i saxaabaam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ridwanullahi alayhim ajmain xamuñu ko googu jaamu yàlla du mën a doon ak jaamu yàlla mukk moo tax xudayfatu ibnul yamaan bi nga xam ne ku am fiq la woon ci bunt bi comme nen ko ubbee woon moo di dafa daan laaj aw ay fu mu toll dafa wax ne kullu ibadatin lam yataabad biha asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fala tataabadu biha fa in al awala lam yadac lil axiri maqaala fattaqu llaha ya machara al qura wa xudu tariqa man kaana qablakum daf ne gépp jaamu yàlla goo xam ne saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamoo wuñ ko woon yàlla nee na bu leen ko jaamoo yàlla ndax kat ña jiitu bàyyi luñ leen dara loo xam ne dañ naan lii seen wàllal loo xam ne bu ngeen dikkee mën ko ci yokk wala ngeen mën ko ci ñambaas waaye ñooña defoon nañ lépp loo xam ne lu ñu santaane woon lañ mu ne kon yéen ñiy jàng ko gëstu ragal leen yàlla ragal leen yàlla te jële ca ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fañ jële woon diine foofa na leen doy bu leen jiima xalaata dolli dara bu leen yokk bu leen jàmbaas yem leen foofu rek moo tax al imaamu Shaatibi bi muy tontu euh, waa jamonoom ngir yëf yu ñu sos ñoom itam daf ne leen lii de bidaa la ndax kat jëf la joo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ba jóge fi defu ko ay saxaabaam muy asalafu saaleh dund nañ ba jóge fi te nit ñu baax ñi itam noonu la seeni mbir demee ba léegi kenn jëfewu ko ci kon mu ne leen loolu bidaa la kon daal euh, rafetlu ak xiyaas ak jàpp lii lu baax la wala lu rafet la war a doon wala ku bëgg diw faw war nga ko mën a defal lu mel nii wala nga xiyaas ko ci ñeneen ñoo xam ne sax léeg-léeg duñ nekk ci biir lislaam nga di ginnaaw ña ngay def lu mel nii noonu itam war nañoo def lu mel noonu yooyu ay bunt la yoo xam ne ci la seytaane di naxe nit ki ba ubbiloo ko ci biir diine ay mbir yoo xam ne ay mbir yoo xam ne mën na ko yóbbe ci biddaa léeg-léeg itam nit ki nag sentiment ak bëgg-bëggu xolam dana ko yóbbee yoo xam ne du da koy dugal ci biddaa Muawiyat ibn Abi Sufyan ak ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum eh, dañoo mas di dox di wër Kaaba gi di dox di wër Muawiya jamono yooyu mooy xalifatul muslimin di wër Abdullah ibn Abbas ànd ak moom Muawiya di def koñ bu mu romb rek ci Kaaba gi daal di koy fóon bi mu ko defee Abdullah ibn Abbas ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaari koñ la daan fóon muy ñaari koñ yi féeteeg Yaman bi tolloog xajarul aswad ak bi ngay jëkk a jot door koo jot lu ko Muawiya tontu foofu waxu sentiment la fi wax mu ne ko laysa minal bayti shay'un matruk mu ne ko néegu yàlla bi daal lenn lu ñuy bàyyi waru fee am lépp lépp baax Abdullah ibn Abbas daal di koy tontu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana di ko ah royukaay bu baax ba de mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko def Muawiyat ibn Abi Sufyan daal di dellu gannaaw fi saasi bi mu dellusee di waraat ñaari ponk yooyu rek ci la fóon hmm. kon euh, jëf ju mën a doon ngir mu baax mhm. faaw borom dana sukkandiku ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye bañ caa yokk bañ caa ñambaas mhm. bañ caa soppi yem ca kepp loolu nag da loo xam ne dafay laaj gëstu day laaj xam-xam day laaj nangoo sonn ah, ku tayeel doo ko man moo tax lu bare bare nit ñi dañuy jékki-jékki nag rek fétal loo jàpp lu war a rafet la rek nga jëfe ko ndax coono ba muy laaj lu bare bari ci nit ñi joxee tuñ boobu coono ci xam-xam mm-hmm. jàpp nañ ne dund ga nga cee def dund gu sànku la ndax àdduna gañe na leen bëgg àdduna ak bëgg euh, jamono gañe na leen daal ci yu bare bari mm-hmm. ba tax na coono ba mu laaj ci wàllu xam-xam ak gëstu mm-hmm. lu bare bari ci nit ñi defatuñ ko loolu moo tax yoon bi daa daanaka moo réer ñooy ànd euh, jógee rek su fa jógee bi daa dana fa daal di jóg kon loolu moo tax jàng xamlu ak xamle euh, naka jekk mooy yoonu asalafu saalih képp koo xam ne yaa ngi bëgg a dimbali diine it faw nag nga soxlawoo loolu mm-hmm. itte woo ko jéem ma jàngale diine ji jéem koo tasaare mm-hmm. jéem koo dund it nag wane ko ci jikko yi mm-hmm. ah wane ko ci jëfiin yi ak waxin yi eh, boole ko it nag ak dër ci këng ba ba nga fay jógee comme ni ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxee na ngeen yóbbu ko ba ca roog seen moom sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndax lu ci àggul foofa rek mën na rëcc borom yàlla na sunu borom tabaraka wa taala dimbali ci loolu dëgëral nu ci yoon wi gën a leer muy siraatul mustaqim dimbali nu nu jàpp ca mm. ba jamono yoo xam ne jóge fi jot na buñ fi jógee mu nangul nu suñuy jëf tabal nu àjjana nun ñëpp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad barakallahu fi kon nag mbokk yi euh, ñu ngi xamal waxtu wi jeex na euh, tomb yi di xawaay di des na incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa ba tey rek ni ngi leen di dégg ne bu nu ko yàlla mayee dañuy continuer punt euh, bi alxamis bii ñëw incha allah euh, su ko defee ñu jéem a mottali li nga xam ne mooy xawaayit yi muy regal yooyu nga xam ne moom la docteur doon wax kon nag ñu ngi leen di këram ci déglu bi di ñaan borom bi tabaraka wa mu bokk nu jariñ ci li nga xam ne moom la ñu dégg te may nu ak sellal may nu itam ñu mën a tënku ci sunna kon nag seen mbokk Ibrahima Khalil ak docteur Mohamed Ahmed Lo ñu nekkoon ci micro bi wala ri mu nekkoon ci technique bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.